waaw ah, mais comme ni ma la ko waxee woon san rek su suñu vidéo précédent bi nee naa la ba tey lii tamit ñu ngi nekk nii ci bërëb liggéeykaay bi gars yi ñu ngi ci kàmb yi di liggéey gars yi ñu ngi roñ bërig yi gars yi ñu ngi nii actuellement man ma ma nekk ceeg gars yoo xam ci dañuy liggéey bu baax a baax ki ma jàkkaarloo nii nekk nee naa la mooy Massamba Mass na nga def Mass ñu ngi lay ziar Mass lan moo waral sa teewaay fii nii waaw mu nekk acte bu am solo mu nekk acte boo xam si acte bu noble la ñëw joxe si li nga xam si ni moom la moom lañ tollool muy suñu doole. liggéeyal pour suñu dëkk liggéeyal pour suñuy waajur mais liggéeyal aussi pour suñu bopp parce que lu waay def fii rek si bopp moo defal jàpp naa loolu nekk lu rafet daal. Hmm. ban message ngay lancé yow ñi nga xam ci ñooy jeunes yi toll ak yow ban message ngeen di lancé. waaw message bi ma leen lancé mooy di leen ñaax. Euh, pour participer ah parce que nekkul ni maanaam da war a joxe sa alal wala da ngaa war a kii rek non non présence bi sax la nit ñi gën a soxla wala jàpp naa ne nekk ni présence bi lañ mobilisation bi jàpp naa ne luñ song laa war nañ ko a daal kon ñoo ngi macha allah waaye ñu ngi invité ñëpp ñu ñëw participer ci bis bi waaye nee naa la ñu nga gis nii ñu ngi ci kàmb gi di dóor waar gars yi ñu ngi liggéey baax Baye Dame ñu ngi lay ziar ñu doon ziar bu wér waaw Baye Dame lan moo waral teewaay bi nii man waaye moom kooku nee na moom dafa sonn ndax xam nga rek mënagul wax ni dimbali ko parce que liggéey bi moo ko laaj boo tax na rek dóor katuwaar la macha allah nee naa la gars yëpp ñu ngi ci kaw ñu ngi liggéey bu baax a baax kon yow moom boo génnee rek. <laughs> à chaque fois nii lay demee rek ñu ngi toujours direct ak euh, YouTube Gueoulart nee naa la ki nga xam ci nag nee naa la moom moom mooy Ndiassé Dieng di doon kenn koo xam ci dafa bokk ci wàllu trésorier bi nee naa la lépp loo xam ci moom mooy dimbal ak luy dugg ci biir day jaar ci loxoom Ndiassé nuyu naa la. waaw ñu ngi lay Ndiassé naka affaire yi mi ngi avancé wala. a mhm. xool ministère euh, terrain bi nga xam ne affaire bi. mi ngi loolu rafet la. ñu ngi ci woo jeunes yi géewu yëpp. Mhm. ba Valentin ñu ñëw jàpp. Mhm, incha allah loolu moom lépp si jot jàpp dinañ wax ne mënee dolli aussi waay loolu rafet na waa kooku nee naa la moom mooy Ndiassé Dieng jërëjëf waaw ñu ngi ci liggéey bi bu baax a baax boobu ba léegi soo ba léegi gars yi taayiwuñu ñu lañ ko jàppoo di def rek képp koo xam ci yàlla nga ko rek nga def ko bu baax a baax waaye nee naa la ki nga xam ci nag moom moo nekk nii sama sama côté di monsieur Diaw doon koo xam ci moom day jàngale dafa dagg yitteem yu bëree bëri bëri ñëw di teew ci ci ci bis bi nii monsieur Diaw ñoo ngi lay ziar. ziar naa waa bis bi tey tey tey lan ngeen ci jotagum def. waaw bon dañuy àggale rek parce que démb lañ ko commencé woon. Mhm. démb lañ commencé woon benn ak euh, fii mhm. mhm. ko defee. Euh, a tëju daal mu des côté bi. côté ko ah, boo xam ci macha allah yéen a koy def ci nu mu waree. jàppoo ngeen bolo ngeen duko def yan jafé jafé mom mo ci amagum pour l'instant ni jafé jafé yi mom bari na parce que sollicitation yi mo bari. Mhm. et tay ni rek amna ñaar ñoo xamni ñew nañ ko. mo di mo di sollicité ñu jàppale leen. ay walu toilette ak ay walu force. Mhm. légui dal euh, jafé jafé manam dal manque de moyens mom mooy suñu jafé jafé mhm. parce que buñ demee ba ki ñun ñooy laamu suñu ay poste ku ne am génne am joxé li nga am ak continuer mais ñi ñun ñu mënoon am ñu ñu jàppale daal franchement ñu jàpp si liggéey bi xam ne jaamu yàlla la booy def da nga koy yaatal parce que da nga ciy yéene Tiwaawan ni ba tax na ñu ngi tàllal képp koo dëkk ngumba wala ku dëkk sax ku dul ngumba dégg lii nga ñëw dugal sa loxo dugal sa ñax incha allah maanaam yàlla bu fay boole ñu koy ñëpp daal jërëjëf jërëjëf monsieur Diaw waaye incha mi ngi woo ñëpp xam ci ñu rek def ba tax na rek la damay image xam ci koy def ci kanam la ki nga gis di jàkkaarloog moom nee naa la moom maçon la boo xam ci depuis bi ñu commencé affaire yi ba léegi mi ngi ci te fay ñu ko dara macha allah mu jàpp ci lool bu baax a baax Pape maa ngi lay nuyu bu baax. ala maa ngi liggéey bi depuis lool yéen a ngi ci di di di tàqale ana yan jafe-jafe ngeen ci jàkkonteel. non laa jafe-jafe. mukk kon maanaam lii daal bànneex la bànneex loolu rafet na de man dama yàkkam di dama yàkkam di samedi jot ba ma xëy samedi dimanche ndeysaan yàlla xam na ko eh, ndeysaan waa dégg nga loolu mu wax ni mu rafetee nee na day yàkkamti ba samedi jot ndeysaan loolu rafet na ndeysaan nee na day yàkkamti samedi jot ba mu sëy si maanaam le weekend nee na moom maanaam bu toogee liggéey bi muy def ndax daanaka jàppal ma jàpp bi sax moo ko gënal ba tax na Pape ñu ngi lay ziar bu baax baax di la remercier merci beaucoup waaw kii tamit nee naa la moom Assane Palla macha allah moom tamit depuis loolu ñu ngi jàpp ci liggéey bu baax a baax bi gars yi commencé ba léegi ñu ngi ci jàpp kontaan nañ bu baax a baax ci ñoom gars yi dañuy dóor waar ni moom macha allah rafet na lool macha allah. waaw nee naa la ba tey ñoo ngi ci émission bi jàppal ma jàpp bi gars yi di liggéey ñu waar ba tey nee naa la ki nga xam ci nag moom laa la jàkkaarloo nee naa la c'est le directeur de jàppal ma jàpp monsieur Badagay ku baax la le coordinateur du la. waaw ñu ngi leen di fay waaw. Ah, mais léegi depuis depuis loolu liggéey bi mi ngi avancé de ah. waaw euh, ñaari fan yi moom dafa mel ne wax dëgg yàlla nit ñi génn nañu en masse. Mhm. pour jàpp ci liggéey bi. Mhm. sant yàlla rek. sant yàlla rek nekk fi mu ne nii def ko moomeelu boppam. Mhm, dëgg waaw mais yan yan yan jafe-jafe moo ci amagum pour l'instant nii. jafe-jafe xam nga moom xam nga comme ñun ñoo préféré dugg ci lii euh, ñëpp xam nañ ne yombul. Mhm. parce que mhm. ñu ñu sumb yëpp incha allah ñu ngi ñu ngi koy àggale la kon Bada Gaye jërëjëf ba ci kanam ñu daal di dellusiwaat ak yow. nit ñi ñu ngi leen di liggéey la boo xam ci nii la mën a demee rek nee la ki nga xam ci nag moom moo fi nekk di monsieur Diagne di nekk ab surveillant fële la ci lycée ba bàyyi yëpp moom tamit monsieur Diagne deux mots. deux mots. Mhm. mot plus moo égal deux mots. <laughs> waaw kooku moom xam nga rek na ma deux mots mot plus mot égal moom yéen waa moom tey moom la ñuy moom la ñuy ngay jël Diagne na def nuyu nañ la bu baax a baax. waaw Diagne nan mbir mi nu mu demee nii ak Salma. waaw gis de gars yi ànd ak engouement bu métti xam naa nag peut être ki ñu koy defal lañ koy yéere parce que kii. ndeysaan comme ko rëdd yi nga xam ne dafa nekk góor boo ci moom ak bàyyam bu rëy ndeysaan lu ngeen ko defee du ngeen ko rëcc xëy na nag engagement boobu moo jàpp gars yi tey yii daal xam naa si yaram baax ndeysaan waaw yéene daal la ñuy liggéeyee ndax ko jar waaw rafet na yéene la ñuy liggéeyee ndax góor gi moom moo ko jar waaw surtout ça jeunesse jeunesse boobu surtout ça ban si waroon jiitu mhm. xam nga si baax quoi bagage ah, yu bëgg nag bis bu ñu dematee benn jën bu ko mënti dégg rek bu xamee ñu ngi koy jaar kii rek ñu ngi génn ñëw jàpp si ndax ah, dama sawarloo yi a baax jàpp naa ñi nga xam ne nag tamit comme ni ma ko waxee woon keroog ay bonne volonté la fi toll nii ñu ngi bëgg a am rupture ciment n'est-ce pas ay fer ak yooyu ñi nga xam ne ñoo doon joxe maa ñun naamaat leen quoi pour ñu gaaw ñëw joxewaat mhm. waaw bëgg ñoo taxaw daal parce que dese nañ si lu mat ay deux à trois chantiers yoo xam war nañu ko defar le temps que ñuy arrêté def évaluation ah, ñu ñëw joxewaat ñu àggale loolu voilà mu doon lu am solo mu doon lu am solo loo xam ci dañ koy def ñoom ñëpp ku ci nekk rek di jàpp bàyyi sa yitte yëpp di jël seeni i salaire tout di ko defaat ci ci ci kii bi macha allah jërëjëf